inni la xillu liman mama dayadi law yaju la xillu

sant yàlla bu baax sant Serigne Touba ñaanal Serigne Touba ba ci ñëw nañ fii leen ci Daaru Salaam doon siyaare ci xalifa bi ci ndigalal suñu président ñu secrétaire général de parti mu Pape Diop président Pape Diop moo yabal ma boole ma ak délégation bu mag bii nga xam ne mooy notable yi ma àndal muy soxna Fatou Kiné Mbaye Mariama Touré ak soxna Kimi soxna Digeen Njaay ak soxna Anta ak euh, Serigne Serigne Gallo Ñan ak Bolle Mbeng Xadim Mbay ak Alaaji Papa gi ak Ablaye Diop ñu fekk si bi nag ak Modou Mamoun Modou mu dëkk jigéen kër gi président ne woon na ngeen jaari ci moom ñu yóbbu leen ñu ñëw àgg ci Serigne bi jotal ko yóbbante président Pape Diop ak sàkkul koy ñaanam ndax Pape Diop président Pape boo xam ne Serigne Touba moo ko ñor te réew mi ko ñor te Serigne Touba la ko jaari di ko wut di wax la Sénégalais yi Sénégalais yi ak Sénégalais yi président Pape Diop nee na tàllal loxo ñun foo ngeen jàppale ko mu sotti réew mi ni ko bëggee ak ni ko xalaatee te buñ ko defee incha allah rabbi réew mi daan ci seen bopp mu wax na ne fi ngeen koy tàmbalee Thank you.